Cheikh Bass ñu ngi lay siyaare kàddu yi nag day mel ni sama kilifa moom mooy mel ni sëñ Abdou Lahad moom mooy ne sëñ Abdou Khadir xam naa ci mujj gi sëñ Abdou Lahad daa yónni Moustapha Ndiaye mu di ma woosi fekk ma ko sëñ Jili bi ma ñëwee sëñ Moustapha Abdou Khadir laa fekk mu toog sëñ bi déglu sëñ Bay Jaxate bés bu toon def pause ma ak see nuyu ko mu ne ma demal ba takkusaan nga del si ba takkusaan jotee ma del si mu ne ma sëñ Abdou Khadre dafa ne demal toog foofa ba mu dem nga doog a ñëw kon day mel ni mm-hmm. ànd boobu yàgg na bu sëñ si di yónnee ci man nag di sama kilifa yónni ma yónni ci muy sëñ Abdou Khadre muy teraanga joo xam ne daf koo def ci sëñ Abdou Khadre waaye jaarle ko jew ndax fi nga ko féete mm-hmm. dafa rafet danga nga koo def kilifa def ko bàyyi def ko sëñ ba ñun ñëpp xam ko sëñ si nag dañ lay wax ni xaw ma lu ma bokk waaye ni ma nit ki def laa ko def laa xam kon fi nga ko teg réy ci moom kawe na ci moom te yàgg na rafet na moo tax lépp lu mu def ci yow ci trang rek xeeb na ko waaye xeebu ko ndax ci loxol sëñ Abdou Khadre la ko teg te sëñ Abdou Khadre mooy sëñ Touba wax naa ko sànq nee na sànq ci ci témoignage bi sëñ Abdou Khadre dafa niru yoonte bi sallallahu alayhi wa mu roy ko moom laa gis ku wax yoonte bi seet si na ko fekk ko ci xayma ba njaboot sëñ Tuubaa ci moom ko dégg kooku nag ab cëram ak ak dund gi mu doon dund sunu kon nag su bisam ñëwee ak ni mu demoon ak sëñ Abdou Khadre nga xam ne la si naak amandoon lañ neew eh, gopp ak ali lañ ànd liggéey wala mbay su am biñu àndee di tam gis nañ mbay nam rafete diire ji sëñ Abdou Khadre ko yoroon lu si luñ luñ ko mës a wax dem nañ si Abdou Khadir bu dee weeru seenu weer ak weer feeñ moom day daal fatu fàttu ji lu si Abdou Khadir wax loolu la ñu weel sëñ Abdou Khadir nag fonk sunna fonk diine ba natt buñ yong yoon doon def yonante bi tëral ko eh, ngir bu ko wax faagal def nañ ko sëñ Abdou Khadir kooku niru gim niru yonante bi ak doon gim ko doon moo tax kon nag su bisam ñëwee lu ci njaboot sëñ Abdou Khadir def nañ ko waaye nag jar na ko yow it ko kon dey ñaan ci barke sëñ Touba barke sëñ Abdou Khadre yàlla yàggal la fi wéral guddal sa fan doole say teraanga yan bi ñu leen itam mu wayfal ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf asalaamaaleykum daanaka sëñ bi sax moo na maa waxaale sëriñ Xamsatu moo wax tontu boppam dëgg la ndax lim jiital kon Cheikh Abdou Lahad ñu ngi lay yóbbantewaatu nuyoo ci bi di ko sant bu baax di ko gërëm ndax lii ba mu ko dara defal léegi mën na ñaar fukki at te koo xam sëñ Sidi xam na du jëfantu ndax Cheikh Abdou Lahad ku ko ku jël ci dara lam daa wax rek damay damay def wala mu bàyyi kon teraange ji koo gis xam na jëf la te cant gi moom daanaka lot làmmiñ ñu lot na ci wax ndax sa kilifa goo xam ne weesu na la ma du waay jur def la ci boppam noo xam mënu ko weesu kon boo ko doon sant doo xam yan baat ngay jëfandikoo ngir sant ko. loolu ñaanal ko yàlla mu yàgg fi te ànd ak wér. te Serigne Touba mi tax di jëf. ndax léeg nit dem fa. bu ko nee sa digg ak mu ne ko loolu lu ñuy wax niw ci. moom noonu noonu la doxee day jëfal mu bàyyi. kon Serigne Hamza ñu ngi lay nuyu yow itam di la siyaare ndax cant genn la ndax wax naa la ko léegi ne la waxtu wu ne danga koy faral di diggante sëñ Abdou Lahad ak sëñ Bukhari ndax seen diggante eh, la ci sëñ Abdou Lahad waxoon rek sëñ Moussa sëñ Bukhari la ko waxoon da ko ne sëñ sëñ de ba ñu yàlla di boole maa moom daa dàq ba ñu sëñ Tuubaa di boole daa dàq seetaan bi moom door ñëw boole sëñ Bukhari itam keroog bañ bañ ko ne Cheikh Abdou Lahad bàyyi ko na fi boo sëñ Moussa Saliou moo ñëwoon di ko yëgal kilifa yi bañ ko ko daa tëj dem yéex a mën a àgg ci moo tax ñu denc ko ci guddi waaye bañ ko ne sëñ bañ bañ njëgloo dana xam mbirum sëñ Abdu la moom suñu son bi dafa ne xaw a bokk nañ waaye ba ba mu teg ba wax inna lillahi wa lam ca mooy maa ngi de gopp ak ëllëg lañu kon day mel ne junjoon na ne ab liggéeyam jeex na moom kon bu sëriñ bi defee nii di suñu kilifa ñun ñëpp te muy kilifa goo xam ne ku mat kilifa la ndax ba bu yàggut rek Cheikh mu Mountakha seere na ko moom mii mi ngi toog mu ne ko amutu bëgg amutu bañ lu suñ bi digle rek tàbbi na ci biir lu suñ bi xalaat rek ànd na ci biir na na mu topp woon ay kilifa loolu fa seen def ba ba faw te noonu waxu ko rek yem ci suñ Mountakha teg ci kàddu yi ne ko sama jataay bii moo ko njëkk a dëgëral te loolu du ma ko fàtte la ci teg kon loolu doon de sëkk ni may defal at mu jot ci teraanga bi su rëy na rëy goo xam ne man sax daanaka àggoon naa ci bëgg ñu bàyyi ko ndax diis gum diis ci man ndax ñàkkatul loolu kon daal loo noo ko santal rek doyut yooyu itam ñu ngi lay sant ndax moo la jëleen boole laag man ci liggéey bi waaye loolu itam yaa ngi koy sàmm ndax mosuñ ci juyoo wax naa ko suñ mun taxaa ba ci dem bu ca kanam kër bu mu dikkee nekk lu ma la ci digal rek yaa ngi koy def te loolu moom moo la ko digal kon di jeexale cant gi ci sëriñ Hamza moo itam di ko sant di ko gërëm ndax day sëtu Serigne Touba waaye di defaru Serigne Touba ndax doomu Serigne Touba ko jur waaye doomu Serigne Touba ko yar jikko jooju rek moo ne coom di ku ku ku yomba àndalit nag ndax nit la koo xam ne ci li ma mën a seere ci moom mooy nit ku day sëñ Abdou daal wax naan Sëñ Tuubaa daan na ngeen folle seen nopp te feet seen bët li muy jàpp ci ni li muy tëb bëtam lay te ku Sëñ Tuubaa yu ñor la ku doxanu yoonu ñor la ku bokk ñor ndax amul frontière ci génn kër njabootu Sëñ Tuubaa gépp ay ay xaritam lañ ñëpp ay soppeem lañ ñëpp jàmm leen yéene rawatina nag man maa ci roxam waxtu ne dama koy seeral fu ma nekk fu ma néewut ci dëgëral maag lu xam ne sama ndama mu yéene ma ko lu mu luy defar la it mu yéene ma ko loolu laa xam ne sama digg moom tam tam yàgg nag ndax màggalu Sëñ Abdou Lahad ba ma tàmbalee yëndu këram loolu 1996 xam nga loolu ñaar ñaar fukki la yoo xam ne at mu jot këram laa yéen loolu kon du benn bés ñu ngi koy sant di sant njaboru Sëñ Tuubaa gépp sant njaboru Sëñ Abdou Lahad gi ndax li nga ko wax rek la seen ak amono lañ kon ñu jeexal ñaan rek suñu borom fekk fekk fekk kon na ngeen jàmm te kenn bañ a manqué salaamaaleykum wa rahmatullah